Basirou Sall Thiès la dëkk mu ànd ak ay wëllëreem euh, kenn ki waajuram mooy euh, meeru Kër Mousso ki ci des mooy représentant consul bu nekk Paris di ay soppeem di euh, ay xaritam moom nag bëggum la bëgg ak nekk sa taalibe loolu waral na sax ñu naan ko mun Muntaxa moo tax mu àndoon ak ñoom tey jii dajale seen addiya ñëw ba ci yow jàkkaarloo ak yow gis gën a yeesal ak njëbalam ak ay soxnaam ak i rakkam ak i doomam ñoom ñëpp ñoo ànd waaw bisimilah. ini bisimilah lii mooy addiyam waaw jërëjëf. toogal tuuti jërëjëf sëñ Bass. jërëjëf sëñ bi nee na su lay sant di la gërëm nee na mi ngi lay ñaanal baax yaa waaw jërëjëf yaa ngi mbooloo mi nga àndal mépp bisimilah tàllal leen na ñëpp tàllal seen loxo ñu may délégation bi ñu ànd ak Serigne Saliou na ñëpp tàllal seen loxo. وعدني من جملة المقربين ولا تصل يا مالكي دليلي asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant samay waajur maa ngi war a maa ngi wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba. tey nag di di bisu mbégte bu rëy si man ma ñëwoon fii si dëkk bi ñuy wax tuuba la ville sainte ñëw recueillir des prières auprès de mon bu sëñ Mountakha Bassirou ànd si nag ak samay xarit samay am di jàmm di si ànd ak ku mel ni Pape Biram Suuf Pape Biram Siis di sama xarit di président mouvement en avant di si ànd ak sama sama soxna Rakam di si ànd ak euh, sunu sunu tons di ànd ak Mohamed bi nga xamante ni vraiment moom moo ni facilité accès bi fii fii nag ñi ngi si résidence Khadim Rasoul waaw mbégte bi nag moom mbégte bu rëy la. waaw parce que bi ma génnee léegi gisanteeg sëñ bi saafanteeg moom li may saafanteeg moom. tàllal ko samay loxo mu ñaanal ma ndax ñaan yooyu yëg naa ni sunu borom du ko delloo ñaan yi dal na tey si bisum àjjuma bii may wax ni euh, ñum day euh, taalibe sëñ tubaa moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am waaw te ñum sëñ tubaa lañuy ñuy moom la ñuy xëyee moom la moom la mooy sunu lépp si gàttal mooy sunu lépp si gàttal waaw du ma sori nag ndax sama xol dafa fees ndax su ma yegsee fii rek yëg-yëg bi may am man rek maa ko xam waaw waa Kees nag maa leen xamal ni. Euh, ñaanal naa ñëpp di ñaan fi nga xamante ni fa laa jóge di kees mu nekk mu am jàmm zone bi nga xamante ni dañ fa dëkk muy zone nord commune nord na am jàmm échange yi ñu si jëm aussi ñu ñu dugg si jàmm génn si si jàmm alhamdulilah rabbil alamin donc sant naa gërëm sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah li sadinatan bi li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna